asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi di delloo ab nuyoo su gan ñu tedd ñi fi ñëw ci njiital sëriñ Abib moom sëriñ Fallu ànd ak ñu ànd liggéey bi ci dikk te yàgg ko def te ñu dégg liggéey bi di ko rafet di ko rafetlu te ñu dikk fii di ci waxtaana man loolu seen bu baax rek waaye liggéey ñëpp ku baax ku ne tàng sa rafet rafetlu nga ko man maa ngi jàpp ne li ngeen def tey li ma ko mën a firee ci sama mbokk sama bopp mooy yarub làbbali la ci man ndax li ngeen di def def naa ku koy def ku ne eh, ku bokk ci Seexul ci war jiitu ndax borom dëkk bi sanc loo na ko dëkk bi yetti yoon bu ci ne mu wax ko bëgg mu defe ko ne kon defe naa lu lu waay def ci dëkk ci luy jëme dëkk bi kanam noo ci war jiitu wax na ma ne sanc bu mujj bi ko mujj sanc loolu da ko woo ci njaareem mm-hmm. na ko dama bëgg nga dem Touba mm-hmm. sancaatal ma dëkk ba mm-hmm. te nga jëkk yent kër yu mag yëpp muy kër gii fi mag gi fii jumaa ji fii mu nekk tey ci néegu boobu tudd ba foofu mu tudd baytul muqaddas ak këru daaru xulus gi ak këru daaru ak këru daaru rahman bu mooy feeñoo ak kër sañ tey ba na ko yent kër yëpp guddi nañ ko def ñeenti téeméeri xasa bet gu ne te fu mu na fa nekk fu barag war a nekk fu a suuf suufu tubaab sépp nañ ko dajale dal ko jël ko gas ko suul ko li féete woon ko lépp féete suuf li féete woon suuf féete bi ba dëkk ba daj waaw lépp dañ koy jal di gas di suul <laughs> ba dëkk bi daj te na koy lépp lañ ko lépp lañ ko def sàng mboolem kër boo tax fi xewagul sa sañeb doxalus neta nee na am na borom door am na fi yaadaat yoo xam tànkam demul door musti ba ñoo noonu lañ toppi dëkk bi jël ko lépp gas ko suul mm-hmm. santaat kër yëpp nam ko ko waxoon ba liggéey bi àgg mm-hmm. kon na defe naa tey bu li xewee ñun ñoo ci war a jiitu <laughs> te ndax loolu fi nekk nag dañ fas yéene saxal te duñ ko te duñ ci jóg mukk kër gi bi ñu koy fondement jamono Alaaji la ma fa dama ñaan la ko wax ko de bi dégg naa am nañu fa dem ne ko maam si woon lim sim fii ta xamul taxawaay loolu daag Alaaji Baara ne ah, maam Cheikh lu mu sëmb dina àgg la mu defal baam ci penc mais de ku ko def ngir yàlla loo sëmb te yàlla ànd loo sëmb yàlla ànd ko ba mu dikkee ne ba kooku dikkee ne ma ne ko tawax yàlla gi laa ba faaw amiin amiin amiin amiin ndax maa ngi jàpp ne loolu sëñ bi dafay defoon man mi la war maa ngi maa maa ngi jàpp ne maa war a tabaxal dëkk bépp ku nekk ma tabaxal na nga ko bëggee nga dem dëkk te daal du la ci war loolu mooy sama yéene kon nag li ngeen def sant nañ ci bu baax a baax parce que nañ ci tax yéene taxaw ci saa si baat lépp luñ ci man te lu nga ci nekk noo koy ànd waaw tey nag bett ngeen ma waaye nag naa jox am ñoo kon barkeeloo ko ñu tàmbalee ko sëñ bi fi sañ sëñ Mountakha moom ku ne xam ne yéene moom amul genn bëgg gudd sëñ bi rek amul yenn yéene ju lëggeel sëñ bi kon ñun ñu topp ci moom bu ñu amee juma war ko jàppale bu baax a baax loolu rek mooy suñu yéene ñun ñëpp incha allah rabbi lépp euh, lu nga ci nekk rek maa ngi ci fu ci war a féete rek nañ ko yëg taxaw ci nañ ci war a taxawee. ministère mm-hmm. bi yëpp jox na leen ci ndigal itam fu waaye mën a ne na nga ci def sa loxo def ci sa itti def sa wërsëg bu ci ndigal ngay wéy loolu rek laa joxoon taalib yëpp ndigal ci réew mi ci bitim réew te kii seeral si mu nga nekk Paris mooy Sakho Balla Diongo moo tax mu fekk loo ko jotaay bi kon nag ndigal ndigal li ñëpp laa ko jox pour waaye nekk na ci def loxoom te xam ne si waaye defal sa bopp nga ko defal waaw lu Touba jëm ci kanam mooy sunu jëm kanam waaw mooy jëm kanam ku yaakaar sëñ Touba kon na si ñëpp góorgóor lu baax rek ñu ko ñëpp ñëpp teg seen bisi liggéey bi ko leer na nañ <laughs> ku ne na ci wetam